ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni nii yéen ay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dara laaj ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy dellu si ci li xewoon ci pharmacie Fadilou Mbacké ak commissaire Baba Sankaré bi agressé woon pharmacien bi di Cheikhouna Gaye moom ak ay éléments am defoon nañ ci nag ab vidéo mais ci vidéo boobu bu ngeen seetloo li ci ëpp sax li ñu def mooy wane ay témoignages pour que ngeen xam mbir yi naka la fa demee avant ñu doon ñëw. di ci joxe suñu commentaire mais dañu seetlu ko depuis bi événement boobu amee dafa am ñoo xamante nii dañu jóg pour coûte que coûte teggil tuuma commissaire Sankharé pour accuser docteur Cheikhouna Gaye maanaam mel ni moom moo tooñ dañ koy wax clairement mu leer ñenn ñoo koy def muy média bii di GFM jaare ci seen rajo bii di RFM ak télé bi di TFM depuis bi histoire bi amee ba léegi lépp def nañ ko pour takkal pharmacien bi comme quoi que mom moy fautif alors que lolé lepp amul. lolo tax ñu def vidéo bi pour wal histoire yi nga ñom créer nañ ko groupe bobu nonu ak seen yenn animateur ak journalistes ay wax dul dëgg yi nga affaires, jibal nañ affaire rien que pour tout ab doomu dañ ko fekk ci ko. dañ koy tambali ak émission bi di khalas Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed

jigéen la nee na man li ñuy wax nii demewu ne mu ne xaw ma commissaire bi xaw ma fu mu dëkk musuma koo gis mais dañu ko tooñ. mu ni commissaire bi leen tooñ. dañ tooñ parce que ci ni ma waxee. Mhm. nee na commissaire bi gars yi euh, ay je pense mercredi la ay vingt deux heures. Mhm. ci la affaire bi xewee. Mhm. commissaire bi bi mu ñëwee. daf leen a laaj teta vax su ma juumul. ñu ne ko am na ci li ci li ma li ma femme bi wax. ñu ne ko am na. mais sur ordinance lañ koy jaay. Mhm. nee nañ daf ne xaw ma lan ñu foto ko yónnee ko whatsapp femme bi nee na loolu amul. comme commissaire dafa tourné génnee téléphone am. Mhm. taxaw ci buntu pharmacie bi. Mhm. am ku mu woo. ne ko indil ma ordonnance bi waxul foto ko de ci li ma femme bi wax indil ma ordonnance bi. ñu ko koy jox. Mhm. femme bi nee na mi ngi toog parce que moom ci jëmi boppam xaw ma devise bu mu yoroon waroon ko jëm weccee ko la yónnee. Mhm. pour mu mën a jënd ay médicament mhm. ba tey moo ma expliqué. bi mu toogee di xaar ñu indil ko échange am xaalisam. ci la keneen ñëw. bi mu ñëwee laajte benn garab. kenn ci ñi ci pharmacie bi nekko am na mais sur ordonnance. Mhm. waa ji na ko xaw ma lan damaa wër ba sonn nangam sàngam ki ne woon du jaay commissaire bi garab te amul ordonnance. Mhm. ci li ma femme bi wax ba tey. Mhm. daal di tourné daal ne ko kii yàgg na ko fay jënd day indi ordonnance jaay ko ko. ci kër gi la bokk. waaw commissaire bi na ko yow tu es malhonnête. loolu moo indi coow li bon ba tey xam nga fekkew ma dañ lay wax rek. tu es malhonnête tu es malhonnête. tu ne pas professionnel. waa ji ne ko doo ma jàngal sama liggéey. coow juddu te li ma lay wax nii dara du ko dindi procès verbal bi nekk police. Mhm. moom waa ji di docteur bi. Mhm. nangu na ne moo poñe commissaire bi pour génne ko. Mhm. ci ay kàddoom bu ngeen ko déggee Mamadou Mouhamed Ndiaye boo xoolee dafa fausser le jeu dès le début wax que ni ndaw si nga xam ne nee nañ. ñoom moom la ñu créé maanaam ndaw soosu existé wul ñoom ñoo ko créé seen bopp mais nee na ci début kàddoom ndaw si bëggul ko enregistré alors que témoignage bu dee rajo la mais nit ki mun na wax après ñu modifier voix am bu ko defee kenn bañ ko xàmmee loolu benn la mais ñaareel bi mooy histoire bi nga xam ne moo jotale commissaire Sankharé ak Cheikhouna gay bi muy am benn jigéen newul woon ci biir pharmacie bi maanaam bi ñuy am altercation du coow amul benn jigéen bu newul ci biir pharmacie bi c'est-à-dire que cas bii nii dafa yomb pour que ñu xam dëgg bi fu mu féetee parce que lépp dañ ko filmer du début jusqu'à la fin lépp dañ ko filmer képp ku ci wax loo xamante ni du dëgg image yi ñi ngi fi dinañ wane ay preuve fii yéen a ngi gis avant commissaire Sankaré di dugg ci biir pharmacie bi xool leen heure bi ban heure jot vingt deux heures trente quatre ñu avancé fii mu dugg di wax ak pharmacien bi doon ko laaj garab beeg yooyu noonu ban heure jotoon instant bi nii vingt deux heures trente six bi mu waxee pharmacien bi ba pare Mana biko pharmacien bi ne du ma la jaay garab bi parce que yor ordonnance commissaire sankare genn alors que ma xamene dafane dafa ne sankare ci bopam biñ ko bañalee dafa tok té loolu bi mi xew am ko jigen ku fa nekkon ku ko fekke kon image yi yéen ko gissal sen bop limu wax mom ma xamene dara amul ci té fi bu ngeen seetloo ci image bi commissaire sankare bi mi genn amono ben xalé bu jigen bu doon dugg si andak ab xalé bu ndaw xamna ñom image bi lañu gis ne xaaruñu profité si créé suñu benn histoire pour jaxase xelu Sénégalais mais malheureusement ñom ñu affaire yi mo amul sax cohérence manam dañ doon wax lu dëgg mais nañ ko sax jubul bu image yi ndaw si and ak bi bi wul ak commissaire ci biir pharmacie bi ku ci ne bi sa bi mu duggee beneen pharmacien bi la waxal ba ñu ko garabam après mu dem pour fay bi mu garabam bay génn la tasanteel commissaire Sankaré momitam itam di duggaat ci bir pharmacie bi Manam commissaire Sankaré mom bi mbiri xewé ñu ko yow ñu la parce que yoro ordonnance au lieu que mu dem ñibi mais ñibbiwul dafa tok. lépp mi ngi xew entre 22h37 ak 22h38 et quelques secondes bu dee ñom ku jigéen ki la ñu pour créer seeni sos ku jigéen ki deful sax 2 minutes ci bir pharmacie bi mi ngi fa nek entre 22h37 ak 22h38. donc Mamadou Mouhamed Ndiaye bu dee ndaw si lay wax xale bu jigéen bi waxati na lu dul dëgg. tey pour wal leen ay preuve commissaire Sankaré duggaat encore mooy bi ndaw si di génn ñoom ki ñu bëggoon mbuboo pour créer seeni mbir. et fii yéen a ngi gis bi muy dugg amatul benn jigéen bu nekk ci biir pharmacie bi maanaam bi ñu ko ne du la jaay garab bu mu génn ba duggaat benn jigéen newul ci biir bën heure jotoon jamono jooju 22 heures 38. lan moo tax ñu leen di won heure bi parce que bëgguñu yenn nit yi nga xamante ni c'est des personnes mal intentionnées yenn détracteurs yi naan dañu avancer vidéo bi parce que am na ci donc Sankara bi mu duggee ba tey mu taxaw di xaar yéen a ngi gisaat fii nii scène bi dañ ko jël ci beneen angle maanaam côté gauche ñaari caméra la mais bi jëlee nañ ko ci beneen caméra yéen a ngi gis fii amul benn cliente amul benn jigéen bu nekk ci biir pharmacie bi kon ñoom seen ndaw soosu ñuy wax fan lañ ko jëlee fu mu jugee kenn xamu ko. gën gi gisaat ci image yi Sankharé bàyyi ba waa ji doon wax ak Cheikhouna gay génn mu ñëwaat commencé waat di wax maanaam moom bëggul woon jàmm ñëw nga ñu ne la garab yi duñ ko jaay sans ordonnance nga toog di insister yéen a ngi bàyyi xel heure bi ba tey ban heure jot 22h39 léegi nag commissaire Sankharé ba mu commencé di jëbal ay wax yoo xamante ni tegginewul la pharmacien bi riposté et loolu seen normal ban góor la sa moroomu góor jàkkaarloog yow fekk la nag ci sa bërëbu liggéeyukaay di la saaga nga toog di banque say loxo coow li foofu la jibee ba 22h40 commissaire Sankaré mi ngi ci pharmacie bi du wax rek te pharmacien bi aussi moom it da koy tontu te moom naa Gaye xëy na dalam ak yaram moo ko téye mais bu doon beneen nit bu am xadar jaxasee na commissaire bi foofu yàgg na. et ñiy wax naan naa gay dafa attaqué commissaire bi bu doonul woon ku daal lu raw attaqué la koy def parce que góor comme yow di la saaga bu doon leneen la ñuy wax mais teewul commissaire baa ngi taxaw rek moom di dàgga sante xam ngeen ni kii méritowul sol suñu tenue parce que amul benn fulla amul benn fayda te bu ngeen xoolee ci geste bi ci scène bi mi ngi ko naan génnal bu dee góor nga génnal image yi nii la ñeen ñi doon wax naan génne wuñ ko woon ci vidéo bi ni passé mais mi ngi nii ngeen di gis jàppante góor ak góor la te ki ko sooke du début jusqu'à la fin du kenn ku dul commissaire bu irresponsable bii après ci le guiné pharmacie bi Douga Tok pour wo ay éléments am et puis fi commissaire Sankaré dafa yépp sénégalais manam yow nga civilu dugg ci pharmacie am fa sa problème personnel ak Kenen, nga utiliser moy police manam auto police ak ay agents yi nga xamante police la ñuy pour dem jàppalu nit li rek mérité woon ñu dàq Sankaré ci armée bi yow ap yambar mëno régler sa problème bop di utiliser suñu police pour régler say compte kon ki daf ñu sénégalais police sénégalaise donc Mamadou Mohamed Ndiaye ak en doon wax seen biir émission di xalaas dara amu la pour pharmacien bi commissaire Sangaré après loolu ba ci biir groupe GFM ci émission Charles Faye ne di sans ordonnance. sur la délivrance de vaccin pharmacien bi amna na lu si wax mais du deug le Tetavax est en vente libre maintenant maintenant soxlul ordonnance la bëgg ne pour jinde Tetavax hmm. bokul si garap yo xamante dañu nek ci ay liste xam ngeen ni nit yu melni ni Charles Faye dañu yëpp sénégalais yi maanaam yow xamoo dara ci produit pharmaceutique jàngoo ko fenn après nga ñew toog télé jakarlok ay junni nit di ci wax même ñun suñu chaîne bi ñu defee vidéo bi passé amna ñu ñu bëggoon duggal ci piège bobu noonu pour que ñu wax ci garab bi di Tetavax mais duñ ko mës def parce que ñu ci dara ñu médecine ñu ko jàng ay année fak médecine ñu ngi nii ngeen seen pharmacien l'objectif de cette rencontre aujourd'hui membre le ci bureau des jeunes pharmaciens du Sénégal en tout cas une réponse wax médicament bi commissaire bi bëggoon jënd dafa leer une question technique après ñu résumer ko ci ay cadres yu simple pour ñi nga xamante ni comprendre li muy wax et au cours de cette émission, les journalistes qui étaient présents avaient apporté des affirmations graves. Ces affirmations étaient vraiment désastreuses. Mais il n'y a aucune loi qui dit que le Tetavax est vendu sur ordonnance. C'est faux. Là, il y a pharmacien, moi j'ai quand même une expérience, c'est faux. Ça n'existe pas. Donc c'est l'occasion aujourd'hui pour nous de dire à ce journaliste que le tétavax, c'est un produit biologique. Donc, c'est un produit qui a été extrait à partir de microbes pour la prévention d'une maladie grave, mortelle, qui est le tétanos. Et ce produit-là peut entraîner des effets secondaires graves aussi, telles que des réactions allergiques à type de choc anaphylactique. Et ce produit-là ne peut être délivré sans ordonnance. Et ça, on ne le dit pas nous parce qu'on veut défendre notre confrère, mais nous le disons aujourd'hui parce que c'est inscrit dans notre code de santé publique. Donc, il y a ab produit biologique la boo xamante ni dañ ko créer ci yenn xeetu microbe yi pour xeex yenn ci ay jàngoro yi nga xam ni mun na dem ba jural ñàkk bakkan doomi aadama bi koy jëfandikoo yu ci mel ni tétanos te itam garab la boo xamante ni dafa am ay effets secondaires maanaam ki koy utiliser mun na ci gis ay njeexital yoo xamante ni du baax ci wér yaramam dafa am nuñ ko war a jëfandikoo loolee moo tax kenn waru ko jënd ci pharmacie te amoo ordonnance su léegi nag yow nga ci sa plateau di jaay intellectuel di jaay borom bopp bu rëy dugg ci domaine jàmbur boo xamante ni nii xamoo ci tous xamoo ci dara normalement Charles fay moom pharmacien yi dañ ko waroon porter plainte parce que li mu def dafa garaaw maanaam garab boo xamante ni jàngoo ko amoo ci xam-xam toog télé naan mun nga ko jënd librement dañ koy jaay librement maanaam yow kon yaa ngi valider li nga xamante ni mooy njaayum garab bu jaarul yoon léegi nag comprendre ngeen lépp ni mu demee groupe Futurs Médias li ñu bëggoon ci histoire bi maanaam teggil tuuma commissaire Sankaré dugal ab honnête citoyen muy na Gaye bi nga xamante ni liggéeyam la doon def sans problème ab nit fekk ko fa tooñ ko jaay ko doole lii dafa ñaaw dara jaru ko bu dee leen corrompre pour que ñu def lii weeru nañ te sénégalais yi gën nañ xam ñoom fi ñu féetee askan wi taxul leen a jóg ci histoire bi waxoon nañ ko te dañ koy répété waat te ëllëg dañ koy gën a dëggal benn responsable la am muy commissaire Baba Sankaré méritowul nekk suñu police wasalaam donc ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf